ma jëm dañ tali bagu war na mbam bi si tur ba xam ne dolol Eumeu Sène l'enfant de Maka Diané l'enfant de Badiana l'enfant de Soto Koyate l'enfant de Pikine ma nga noon arbitre sifle na Eumeu Sène Bombardier wara ma jëm ne keng wax ma jëm dañ tali la ilaha illallah samedi le 28 le 28 juillet stade Léopold Sédar Senghor boy boy nekkatu bi yaay boy nekkatu bi arbitre sifle na Eumeu Sène bañ yaa ngay medi mbàccum gerte ara yaa ngay naaw deere yaa ngay naaw o madina kore ina koray xang rang mag fang xang o ma door na legi o ma jay romb na legi o ma daw na takk mo mar jay o ma ten o ma war na ko ndam o ma sañ xol na ko faqan na ko walaake na ko jël waree na lopit war ma seen bajana law ma rapikin in fañ in fañ fañ fañ Nie ma, ty wojna!